Sitoé Diatta lu ko dara. waaw mais absolument. Aline Sitoé Diatta. Mhm. bañ a fay impôt colonial. moo tax ñu exilé ko. déporté ko ba ca Mali yóbbu ko Tombouctou. Tombouctou euh, faat jël bakkanam ba foofu lañ ko denc tey. Mhm. tey jii te te loolu mu ne yemu ci woon de Aline Sitoé Diatta xam nga impôt colonial rek la ñuy wax. Mhm. mais ba ci ni mu daan gis xale yu jigéen yi ñu leen di jël fii ci kër yi Ndakaaru ñu ciy liggéey te respecté wuñ seen droit daf ko xeex. kon kooku mësul nangu injustice donc ñaari yi tax nga des ci histoire wax naa léegi le pardon beneen bi mooy nan ngay taxawee hmm. pour xeex injustice te ci biir xeex injustice bi hmm. doo ci def injustice d'accord réew réew moomu nga tudd ak ñi nga xam ne yëpp Aline Sitoé yaa euh, c'est un bel exemple d'ailleurs hmm. ak ñeneen ak ñeneen ñu mel na ñoom euh, tey jii bu ñu toogee ci réew moomu ba mu jàgg ñu ne suñu démocratie boobu toll nañ ci moment bi ñuy waxtaane mën ak yow nii ñu ne lu ëpp junniy xale ñu ngi ci prison yi pour ay posts sur Facebook ay déclaration euh, euh, sur les chaînes de télé ou de radio ay wax yu ñu wax ci groupe WhatsApp ñu ne la parmi ces Sénégalais là am na ci ñu nekk ñu nekk sax en grève de la de la faim. Mm-hmm. ñu ne la dans ce Sénégal de 2023 am na parti bu ñu fi dissoudre. Mm-hmm. xam nga xam nga bu baax histoire politique gu Sénégal lan la lay inspiré. xam nga démocratie il faut ñu mm. xam njëriñu démocratie. Mm-hmm. parce que si la démocratie. démocratie su ma su ma permettre ma lekk. permettre ma ma naan. permettre ma ma am sama dignité démocratie amul njëriñ finalement non la démocratie comme les institutions mhm. dafa war a contribuer concourir à un mieux-être des populations mmh. démocratie boo xamante ni permettre la nga lekk mais démocratie bi noo koy natte su la gars ne oui tu un pays démocrate oui c'est très bien oui. Niger a été salué mhm. bi Issoufou Deme Bazoum ñëw bi Issoufou Deme Bazoum ñëw mais démocratie Niger ñëpp dañ ko doon tàkk di ko vitrine la ndekete euh, mhm. yi ñoo te loolu mooy réalité bi am donc li nit ñi di wax ku mhm. nekk xam nga sa bopp ñun Sénégal ñu ni neen la kenn raxuñu mhm. xam nañ suñu bopp xam nañ tamit kii kii donc tey jii boo jëlee démocratie man loolu laa ci njëkk a wax ñu xam ne démocratie bu mu mën di nekk les bons points de la démocratie ni ñu koy nattee mhm. mooy est que nit ñaa ngi génn ci réer ñoo ngi dem école ndax est nit ñaa ngi ku feebar ma ngay faju mhm. ndax est keroog gis naa benn rapport en France ñu ne les centenaires ont augmenté de trente pour cent maanaam ñi am téeméeri at ah yokk nañ toll ci fanweeri yoon exactement benn rapport bu ma doon lire mhm. donc dafa am lu ñuy wax ne Serigne Fallou ko doon wax radiyallahu taala an mm-hmm. dafa doon wax ne nit ñi pour nga jiite leen il faut nga xajoo seen bang bang absolument pour nga mën leen a yilif mm-hmm. il faut nga xajoo seen bang-bang mm-hmm. yenn saa yi sax kenn def naka sudul noonu ci biir parti bi mm-hmm. ma xaw am nu ma def gaa yi ne ma attention yow yaay cité sëñ Fallou tout le temps xajool bang-bangam <laughs> xajoo bang-bang yi nit ñi mënoo leen jiite te doo leen baal seen i seen i manquement beneen borom xam-xam wax ne non non seulement doo xajoo seen manquement mais da nga leen war a vers le haut c'est-à-dire que la justice ne doit pas être vue comme quelqu'un qui réprime systématiquement mhm. dafa war a am une dimension pédagogique tey jii boo demee tribunal mhm. nga toog gis juge bi ñëw indi dossier yi mais da gis ne quatre vingt dix pour cent des gens yi ñuy inculpé lan moo tax par ignorance du droit ñàkk xam ñàkk xam donc justice suñu réew yi dafa war a gunge aussi suñu enjeu de développement yi mm -hmm. donc justice aussi warul di feeñ wala mu fës rek quand il s'agit de la politique dinaa ci ñëwaat mhm. mais léegi alors nan la ñuy def léegi li sëriñ lu wax ne xajoo seen bang bang mhm. beneen bi it da benn borom xam-xam day wax ne la démocratie a ses emmerdements mhm. loolu tamit il faut que nga nangu ko waaw ñun nag on veut profiter des privilèges de la démocratie. waaw ba pare refuser ses contraintes. exactement nag da nga koy da nga koy nangu. les contraintes da ciy bokk nga nekk président de la république. Mhm. tiim ñëpp. ëpp ñëpp doole. Pape Djibril Fall ou Moustapha mën a toog ci plateau télé wax la lu la neex. lu leen neex te te ba pare euh, loolu yonent daf ko jàngale. il faut que nit ki nit ñi boo leen bëggee yëkkati il faut que nga mën a wàcc ba fi ñu nekk jëlee leen fa ànd ak ñoom. ànd ak ñoom waaw il faut que nga am capacité boobu. fii nag fii nag. Mhm. boo xasee falu rek dafa am lu lay làq nit ñi. Mhm. dafa am lu lay jëlati nit ñi. y a un protocole qui est extrêmement bu président waree dem fenn da ngay mhm. gis ne la fa ñaaw yëpp dañ ko koy nëbb. du ko gis. on le traite comme un monarque en réalité. suñu man maa ngi man gis nga bu ñu ma defee président de la république suma première visite yu may def prison yi laa koy laa koy laa koy jagleel. Mhm. un président de la république buy dem ci prison visite officielle. pour constater avec les sénégalais que la fa nekk gàcce gu rëy la ci Sénégal. Mhm. parce que fu ay fas dëkkoon nga jël def fa ay doomu aadama. ñuy yokk rek nag. ñuy yokk rek. Mhm. man dem naa fii euh, décembre deux mille vingt ou vingt et mhm. mille vingt dem naa ci prison yi soxna yi fii ci Liberté 6 ma leen di nuyu. Mhm. au passage keroog euh, nekkoon naa fa ci melokaan bu jéggi dayoo ndax njàqare bu ma am ndax. jigéen ñi foofu donte ña ngi leen di taxaw l'administration pénitentiaire fait un travail remarquable mmh. on lui demande même l'efficience efficience mooy lan mooy fait beaucoup de résultat avec des moyens, moyens des moyens dérisoires sax souvent agent yi ni ñu leen war a taxawoo taxawuñ leen noonu. Mm-hmm. nga war a jóge sa kër. daanaka yow prisonnier nga ndax agent pénitentiaire daanaka prisonnier la. Hmm. et d' ailleurs euh, député nga hmm. euh, man ñoom ci seen bopp am na ñu ma ci interpellé sur leur statut. boo xam ne amoon na ay promesses yu ci defoon mais ba léegi amul soppeekuwul ba tey jii dafa des te noonu hmm. lay noonu lay bàyyee xel aussi la police comme la gendarmerie. ne du point de vue du cantonnement l' état du Sénégal doit faire beaucoup plus d' mooy fi ñu leen di dalal fi ñuy nekk du c' est comme les sapeurs pompiers. qui font un travail gis nga démb li xew mbaaw. ba 16 heures 18 heures hmm. maa ngi dégg ñu naan am na ñett daal nit yoo xam ñoo ngi leen di woo hmm. jotuñu leen téléphone njort nañ ne hmm. ñoo ngi ci biir immeuble bi jusqu'à mais parce que il faut que ñu étoffer <coughs> leen davantage en moyen pour ñu mën a def liggéey boobu parce que ils sont fermés dans les très grandes écoles du monde ah écoles yu gën a mag fa la ñuy dem jàngi te bala ngay xam xarañteefu sunu agent sunu force de défense et de sécurité yi ñu mhm. dem dans les missions internationales donc pour revenir ci li nga doon wax par rapport à la démocratie mhm. et aux <laughs> ak ak ak surtout nit ñi ni ñu war a euh, yëkkati ko aussi pour mhm. être à la hauteur des enjeux xam nga tey yow yaa ngi def liggéey boo xam ça demande beaucoup de responsabilité mais da ngay revendiquer la liberté mais dañuy fekk Moustapha Diop aussi toog bu wër ci responsabilité liberté ak responsabilité. ça va ensemble. waaw xam nga on peut Mamadou Dia dafa wax ne on peut hmm. renoncer à des droits. Hmm. mais on ne saurait renoncer à des devoirs. waaw mën nga ne sama lii sama àq la. Hmm. wala sama sama àq la bàyyi naa ko. mais sa yelleef li la war. li la war li la war tegu ci sa kaw. du la wàcc mukk il faut nga def ko pour être libre seul le devoir nous rendra libre. donc je constate li nga wax léegi ces situation là yi ak Sénégal. ne. li ñu am ci jafe-jafe ma soti ko boobu ba tey ñu ciy waxtaan. Mhm. loolu nag moo waroon a nekk au cœur du débat gis nga loolu bu ñu ci nekkoon. Mhm. ministre yi nekk ci kon ministre du am jotu ñu koy tuumaal. détournement mhm. ba am keneen ku koy tuumaal diffamation euh, la raison du mal laa wax ba ñu jël kooku war ko yóbbu tribunal atte ko di ko dugal ci élection wala di ko ci génne bu doon ministre ba lañ ko fal la waroon a tax mu ne ca ma nga loolu du am am bu doon aussi président de la république yëkkatiku na njaboote ñëpp génn ci logique gu parti. Mhm. loolu moo tax may wax fii ne Pape Djibril Fall bu ñu ko defee président de la République mhm. deux mille vingt quatre. Mhm. sama parti bi dama naan gars yi gérer leen ko. gérer leen parti bi man léegi réew mi ma moom. parti mënatuma moom. teg kon nga d' accord ak li ma waaj waxoon ne un président doit pouvoir trahir son camp. mais bien sûr c' est le devoir d' ñi ngay ñi ngay àndal ñii devoir d' ingratitude moo ko doon wax. le devoir d' ingratitude. c' est à dire que tey ñi la fal. dañu la gunge pour am nga am yéene ci réew mi faluñu la pour nga régler seeni problème mhm. dañ laa fal pour nga changer réew mi réew mi ñoom ñoo régler problème Sénégal te loolu ñun dañ ko tàmbalee jëmmal Moustapha gis nga bi élection législative jàllee mhm. dama ne bugguma xàmme fu may dem mhm. dama naan ña ma fay représenté ngir yàlla bu ma ñëwee bu leen ma wax kii moo la voté ak kii moo la voté lut député wu ñëpp nga ba démb fi ma mujjee muy Sandiara bi ma mujjee démb bi may dem dama ne leen na ngeen invité ñëpp toutes les obédiences toutes les colorations politiques qui existent mm. parce que réew looloo koy tabax tey jii dama lay joxe exemple boo jëlee Emmanuel boo jëlee Emmanuel Macron hmm. bi mu ñëwee en 2017 ak en marche en marche hmm. ki mu def premier ministre kooku bu pexem sotti woon Macron du falu oui parti wu Sarkozy la bokkoon Edouard Philippe absolument c'était le l'un des le baron wala l'état-major bu bu Alain Juppé moo ko yoroon hmm. ki nga tudd sànq bi ñuy waajal émission bi Darmanin. Darmanin kooku tamit bu pexeem sotti woon. Boy Sarkozy la la woon. Mhm. ki yor économie. Mhm. moom moo doon wax ci campagne bi ne Macron amul programme. oui muy Bruno Le Maire. oui te tey jii moo yor di doxal. lii mooy defar réew. pour yow Sénégal boobu mën na nekk. man de loolu laa bëgg. tey jii lu ma mhm. nit xeex xeex xeex. jàpp ne pap Djibril Fall bokkul ak man gis-gis. Moustapha maa ngi lay wax fii te nañu ko denc. comme VAR dafa xew. bu ma fi nekkee président de la République. kooku lay dem jëli mhm. ne ko kaay ma dénk la lii ndax kenn mënu la ci donte bokkoog man donc donte xeex nga ma mhm. ba sonn ngir tefaluwu ma d'accord alors moment bi il faut ñu dàqante ak waxtu bi parce que jeex na daanaka mu mhm. euh, ngi jëm à six mois de la présidentielle donc leneen li les arrestations arbitraires oui euh, ñoo ngi ñaan ñoo ngi ñaan parce que jeune ak énergie bi ñu am ndaw yi ma gis énergie bi ñu am parce que abus daf ci am bu baree baree bari hmm. am naa ci ay wëllëre yoo xamante ni su ma xel dama leen di bàyyi xel jamono ji ku tudd hmm. om sëñ Omar Bamba Diop sëñ Omar Bamba Diop su ma wëllëre la ma xam ko mënta rey weñ du tout weñ li may wax ti tamit damay seede lu ma xam hmm. dama ko xam muy liggéey liggéey bu am solo liggéeyal ko maamam surtout waxtu wi nag waaw liggéeyal ko maam Thierno Birahim jamono ji ku mel ni moom daan na ñëw nga invité ko muy def liggéey bu am solo ci kër Cheikh Ahmadou Bamba Khadim nit ku baax la man dama ko xam personnellement te malgré euh, le mu nekk Pastef man ma nekk serviteur mhm. su ma wóllëre la on échange tout le temps yenn saa sax mu woo ma mhm. ne ma pap de fii dama fi dugg mais ay serviteur la fekk xaaral ma passe leen téléphone nga wax ñoom <laughs> donc nit ku baax koo xamante ni mhm. tey ji comprends pas son séjour carcéral donc comprendre uma ko te noonu xëy na mu ma dalee ci moom noonu la dalee ci keneen noonu la dalee ci xale yoo xamante ni rawatina ñi nga xam dina doon contribuer ci baisser la tension à quelques six mois de la présidentielle mais bien sûr te pour mhm. man président Macky Sall mu ne dafa am yóbbal bu mag mhm. bu mu war a jox Sénégal fii ñu toll mhm. bi mu nee du def troisième mandat réew mi dafa feex li ma benn waay di wax nee ma mujj gu rafet rek am